Connect Food agsi na nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay sa kër wala foo mënti nekk téléchargel application Connect Food commandé ci restaurant bu la neex waaw lu ëpp cinquante restaurant yu gën a mag biir Dakar ñoo nekk ci application Connect Food Connect Food daal boo bëggee sa restaurant di gën a fës wala nga bëgg a commandé vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours sur sept Connect Food mooy bu baax bi ku bëgg ay leeral téléchargel Connect Food Play Store wala App Store wala nga woote ci 77 821 08 27 wala 33 840 43 29 73. Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livre la. Jolof ci Chicken moo leen di may li ci yéenekaay yi mbokk yi dal leen ak jàmm président Macky Sall bu dee ñetteelu mandat lay wut nag jamono ji la quotidien yéenekaay yi jàpp na ne tàmbali na ko ci penku réew mi rawatina ca Tambacounda yéenekaay bi xëy ñooy wax ci tournée économique gi mu nekk woon moom président de la république nag niki démb door na ko ca Tambacounda naka noonu ba mu fa agsee nag ay doomi aadama yu bari teertu nañ ko foofu noonu ca Tamba laas yéenekaay yi xëy di feelu le quotidien naan niki démb kañ ca Tambacounda président Macky Sall xolam seddoon na ndax gëj na gis mbooloo mi ni mel taqul lool taxaw ci kanamam di ko wiiw turam ak kañ ne moom moo fi gën mooy mi njiit mi Sénégal yëpp bëgg naka noonu critique yéen kaay jàpp ne jamono ji kañ président Macky Sall agenda bi mu tegoon jëmee ci wàllum tournée économique ak politique nag ca Tambacounda agenda woowu noonu dor na te jamono ji nii moom ci li mu gisagum ca Tamba xelam mën naa daal li amee démb ca Tamba moo tax l'observateur yéen kaay xëy dippee ko Tamba le beau maquillage ndax foofu nag ba mu ci àggee président Macky Sall jot naa yëkkati ay kàddu jëmee ci wàllum santé éducation tourisme artisanat ak mbirum xëy mi moom président la république dig na ne daan na génne koppar ci ñaari téeméer ñuy toftal ñeen fukk ak juróom-ñetti ci ay milliards ngir rek daal di koy delloo foofu noonu ca dëkk ba ngir njafey yeewoo ñoom ñëpp mën a gis seen bopp ci ni réew mi di doxee ak yoonu émergence maanaam ñoŋalaat dëkk bi gi nga xamante ne moom moom la jëfee moom président waa Tamba itam bañ ca des ginnaaw ñoŋalaat ak defaraat googu lee mu saytu ca Tambacounda nag yor yor yéene kaay jàpp na ko ne président Macky Sall ba noppi nag mën nañ jàpp ne loolu ab tàggatoo ndax moom yooru wut ci kàddu yi ne ci atum 2024 moom président de la république narut nekk candidat ngir jiite réew mi te su ko daanal kàddu googalee nag Aïssata Tall Sall borom osé l'avenir moom mi moo osé ji wax moom mi moo osé wax ci tribune yéen kaay moom mi lee nga xamante moo mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllum affaire étrangère nekk avocat jot naa xamle ne jamono ji nag waxi troisième mandat politiquement moralement Macky ne doit pas se présenter waaye moom jot naa xamle ne constitution bi nga xamante ne moo amee ci biir réew mi noppi candidature am moom président Macky Sall kaddu yooyu lay mu yëkkati moo nekk ci Walf Quotidien mu ñu xëy di wax ne Aïssata Tall Sall moom osé wax ne jamono ji gisu ab avenir te président Macky du nekk ca booba moo taxit moom ilee jot na wax ne troisième mandat gi ñu ñeel président de la république nag daanaka constitution bi nekk ci réew mi bañu ko de nee na bi nangu na troisième mandat moom mi soxla si jot naa leeral ci yéene kaay bi ne ci ñetteelu la ci politique elle est mathématique maanaam ci wàllum xayma ak tonte la ñuy war a wékk troisième candidature boobule ndax moom mi lee jot naa xam ne ne constitution bu Sénégal da ganal na troisième candidature ci la yéene kay moom jëwriñ ji Aïssata Tall Sall jot naa wax ni mandat yi ñuy laam laamee ci dëkk nag te président de la république amee ko wala war koo mën a amee nag suñu saytoo ci wàllum constitution ak constitution gu bees gi ñu nekk ci réew mi nag ci la ñu war a mën a tàmbalee xayma ñetta la de la république wala def a wax 2024 moom président Macky Sall su ko neexee samp ndëndam waaye de du ko fi tëggee de rapport bi fi Cour des comptes tëggoon nag te mu jur fi coow lu rëy jamono ji nag la ñu lanket yéen kaay xëy di ñu wax ne yëf dafa mel ni politique laale na ca ba tax na keroog ci ajuma ja ministre bi gàlloog wàllum kopparu réew mi di ministre des finances Mouhamadou Moustapha Ba jot naa leeral nan la yëf yi tëddee moom mi lay jot naa wax ni amul benn càcc goo xamante ne jot nañ koo def li ñu war a def kañ mooy leeral koppar yi nga xamante ne fañ koo dugal firnde yu yaakaar moo ca génne ko ngir askan wi mën a xam nan la yëf yi daal di demee ci kàddu yooyu lay niki démb nag Ousmane Sonko jot na ca àddune li li amee yi yëpp moom waxoon na ko ndax na ne ñi fi président Macky Sall teg dañoo tële ni moom na amut benn yaakaar ne ñi la war nañ mën a def loo xamante ne mën naa neex askan wi ndax ci guuta rek lañ leen daal di jëmee mi la ci la témoin yéene kaay Ousmane Sonko jot naa xam ne ne li amee ci réew mi yëpp waruñu joxañ kenn baaraama tuuba ku dul président Macky Sall ndax lii la yëpp moom moo leen ko bàyyile Vox Populi xëy ñoo wax ci ab message bu mu doon jàlle niki démb nag moom Ousmane Sonko jot naa di ay leeral ci dossier boobu nga xamante ne jamono ji bëri na la ci askan wi di xaar te gisaguñu ko te moom ñaax na leen ba fan ak benn ci weeru décembre gi ñu nekk nag ñu amal beneenub concert casserole fëgg bool yeeg palaat yi klaxon yi moto yeeg oto yi ngir président Macky Sall amee riir gën xel ci li xew ci réew mi moom mi la amee riir di Ousmane Sonko jot naa xamle ne ci rapport yi le moom xam na juróom-ñeenti ministre yoo xamante ne daana seen tur ne ñoom ñi le rapport yi moom am na ay firnde nekk koppar yi fañ ko dugal du foofa te loolu faw askan wi bàyyi xel moo taxit leen ci ab xeex xeex goo xamante ne amul dóor amul saaga li ñuy def rek mooy génn wane suñu njàkkare ak maire gi nga président Macky ñi mu dénk suñu koppar ñoo ngi saax-saaxee nag lii lay moom mi lee Ousmane Sonko sàq ñu def ko bésub juróom benn fan ci weeru janvier gi ñu dëgmal laata loolu nag fanweeri fan ak benn ci weeru décembre nañu amale ab concert casserole tànkal président la république takkal ko pot ba moom mi mën ñoo gestu moom Ousmane Sonko mi lee di wax ne ci mbir mi yéenekaay bi jàpp na ne doyen des juges di Oumar Maham Diallo mu ngi ci yoonu boucler dossier bi tegee ko ne wala yéenekaay bi di laaj ne ginnaaw ba mu dégloo ñi nga xamante ne ñoom ñi li jot a lim ci bile dossier yëpp nan lay daal defandi ndax day daal indi ab non lieu wax Ousmane Sonko ne na sa xel dal sa ginnaaw ba ndang ndax yëf yi li ko xoolee defoo dara ndax day wéyal yëf yi ñu àgg ci procès foofa nag ku nekk indi say argument preuve ne fàng ñu xam kan moo def lan mu mën a àtte setal wala tilimal Ousmane Sonko monseigneur Benjamin Ndiaye ndakaaru nag ci feetu nowel yi ñu génn jot naa saani ab kaddu jëme ci réew mi ak ni muy doxee ci le soleil moom ñaax na ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fi nekk mooy nga nekk politique nga nekk akub citoyen wala soldat nag war ngaa sàmm bu baax jàmm ak daal neex dëkkal gi nekk ci réew mi gi yàlla mën ñoo mësal ci fitna ndax fu nekk la war a mën a jóge ci le quotidien yéen kaay moom monseigneur Benjamin Ndiaye ñaan na ci juddub Yeesu Krista gi ñu doon màggal ñaar fukki fan ak juróom ci décembre gi nag na yàlla na réew mi am jàmm des ak jàmm ba fu waay mën a dem mën a am jàmm jam jooju leen ñu am ci biir réew mi nag li ko nar a gàqal bokk na ci suñu réew bi nga xamante waa Grande-Bretagne dañ ko jël daal di koy placer liste rouge ngir ñi nga xamante ne dañ fi ñëw defee fi ñawteef rawatina di def ay blanchiment d'argent maanaam di lewal ak setal xaalis gu tilim leen nag président Macky Sall njortoon na ko ndax am na ab rapport boo xamante ne génne woon nañ ko jëmee ci wàllum blanchiment de capitaux ak financement de terrorisme ci loolu jamono ji nag gu yaramam gasaam lool ba tax na 24 yéene kaay xëy wax ne moom mi di Pape Alé Niang daal dinañ koy ca kasu ko nekkoon rawale ko ca l'hôpital libération yéene kaay xëy di diggal xibaar googu ne kañ jamono ji taskatu xibaar bii di Pape Alé Niang moo ngi ca l'hôpital principal ginnaaw ba mu dee wate woon kaso moom mi la nag amal ab grève de la faim xiifal ngir ñaaw lu mu bàyyi taxawaay bi nga xamante ne ñi yor xar géej gi nag naka keroon nag waa section de recherche xaral nañ ko billet daggal ko bu bees tàq yóbbu ko ndungu siin li ko waral mooy moom mi la di kunkande da doon jéem a nax akub immigré ba lekk ci moom ñeent million te la mu leen diggoon amul dara loo xamante ne def na ko ci amul dara naxe rek la fi nekkee ñaari football kat yu Sénégal ya nekk Chelsea nag kenn xamul fa lañ nar a footballay li ko waral mooy jamono ji nag seen taxawaay sa club boobu lee nag ci mel ni Kalidou Koulibaly gis nañ ci weeru janvier gi ñu dëgmal nag mu nar a ci club boobu Inter de Milan bàyyi xel lool El Tactico mu ñu bàyyi woon xel ci coupe du monde gi ñu génn ne soo ma daana bàyyi postam maître Augustin Senghor jot naa leeral ci le record kaay ne moo ngi cay ne ci atum gi ñu dëgmal su neexee sunu borom bii maye Sénégal bépp match bu mu nar a football wala ñu nar amal fii ba at boobu la jëmee ci coupe d'Afrique moom mi lay siise ngaari njar meew njar soow moo nar yor équipe bi boo ñaa deux mité akub mer jëmee ci Balla Gaye moom jot na xam ne ne le premier janvier gi ñu jëm nag arbitre su sifflé waa ji na jël sama bakkan wala ma jël bosam maanaam Balla Gaye 2 laata muy dem stade jour boobu na waajal bopp te na xam ne su fa eggee gone Pikine gi daana ko jaay bakkanam te su ko bañ a jël moom daana jël bosam waxi jaay bakkan moom man dama cee waxul dara moo taxit ma ne leen ñu frank lay tëj yéen kaay ba ëllëg jolof ci kën moo leen doon may li ci yéen kaay jolof ci kën ak croustillant teneer commandel rek ñu livré Connect Food agsi na nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay. sa kër wala foo mënti nekk téléchargé application Connect Food commandé ci restaurant bu la neex waaw lu ëpp cinquante restaurant yu gën a mag biir Dakar ñoo nekk ci application Connect Food Connect Food daal boo bëggee sa restaurant di gën a fës wala nga bëgg a commandé vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours sur sept Connect Food mooy bu baax bi ku bëgg ay leeral téléchargé Connect Food Play Store wala App Store wala nga woote ci 77 821 08 27 wala 33 840 43 29 73.